alhamdulillahi rabbil alamin li nu ñaanoon yàlla san may nanu ko baa la may nanu ko ndax fii bi nu fi mujjee nun ñëpp li nu ñaanoon moo doon yàlla na nu fekke déwén kon bu nu san borom baaxaatee xéewal gii guddi gu tedd gii guddi gu rëy gii weer wu tedd wi nu fekkewaat ko bokkaat ci ñi ko tal nu delluwaat santaat yàlla bu baax ñaana laat ko moom mi yor lu dul jeex te bëggul lu dul ku ko ci ñaan di leen sant di leen gërëm di àndandoowaat ñaan du doy du dolliwaat sunu jàmbaar ja sunu jëwriñ ja ka jiite woon ka tobbi woon ka daan defal guddi gi lépp bu ñëwee mu miraas boppam miraas ak njabootam def ci alaaji Moodu Maamun Ndaama yal na ko yàlla fay guddi gii sàkkalu ko woon fu mu doon yem lu ne poosam lu njabootam yor la ñuy wekk di jaay baa ñu koy ñaw sax lu ci jarul baa demul mu jël ko fii bari na ba tàyyi ñoo xam ne fii daana leen sànni bu dee jigéen lu ñu sol bu dee góor lu ñu sol yal na ko yàlla solal te mu bi àjjana ya di gërëmaat nag wëlëre yi ak xarit yi at mu ne ñu di ko wax gàmmu du màggal dëkk yu bari ñooy gàmmu ngay romb di xuus ba ak si Touba Fall mu xeex wëlëre la moo la ko jaral xarit moo la ko jaral koo xam ni yéen a bokk lépp moo la ko jaral nga ni mënumaa bañ a dem gàmmu Moodu Mbàkke ga mënumaa bañ a dem kat dana fa ne mënumaa bañ a dem ndax sama digg ab Ablaay Njaay baa ni ma mel ak walla wala daboot ku Seynu nii laa melanteeg Alioune Mbaye indi na fi ñu jóge Ndar indi fi ñeneen ak ñeneen kenn ku ci nekk Cheikh Aram ku ne am na fi ñu ñëw di la fekk si ñooñu kenn amul seenu pay ñoo ngi ñaan ci barke borom guddi gii nga xam ni lépp mooma léppit ci mu fay leen di ñaanalaat nag di ñaanalaat nag sëriñ Mamadan Fall yan bii ko sa yan te téeñal ko ko mu taxaw tànki suñu jàmbaar ja wax naa sànq ba nuy waxtaan ma ni alhamdulilahi rabbil alamina bi yàllaa ndaa ma tegee tànk fii ndax bu nekkoon turfiste tey nu ñëpp ñoori fas nit ki li mu nàmp rek lay tokkamtiku tubaab yi ñi jàng di pédagogue ñoo naan lekkool n'est qu'une copie de la société ni nga mel tàggat ci sa njaboot boo toogee noonu lañuy mel boo jógee noonu la ñuy mel ndokk bañ ko taree ci kanamam mu jóge fi ñu continuer ko yàlla na leen yàlla jàppale kon trois heures dafay bëgg a jot te jàngkat yi nekk fi noo ngi gërëm daal ñépp ni ma ko waxee rek boo limee danga ba doo matal baa di nga am ñoo xam ni war nga leen a tudd waaye ku di xarit ku di wëlëre ku def dérangement ngir guddi gi noo ngi lay sant noo ngi lay gërëm di la ñaanal yàlla di delluwaat di ñaanalaat kin dul doyal ci moom mukk sëriñ Modou Mamoun yàlla na ko yàlla fay ci barke guddi gi ah, tey nag am nanu gan sëriñ gàkku moom laa dendal nii mu bokk ci liggéeykati sëriñ Touba yi di gëstu di jàng ci xasaayit bala ma ko jox dañu dellu gërëmaat ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci tool bi cay doog a wàcc léegi gërëm leen ci barke guddi gu tedd gi xasaayiti xaadimul Moustapha yi ñu doon faram fàcce waaye gërëm leen nag ndax dañuy njabootu dëkk bi di doomi dëkk bi sëriñ Abdoulaye Lahat Fall moom sëriñ Cheikh Fall maam say yal na ko yàlla wane leeg mbokkam ma allah jëndaama ci kippaaru xaadimal Moustapha moom ñi mu bokkal jamono yëpp déggoog ñoom ñëpp ñoo teggoon fii doon yëkkati léegi du durus ngeen dégg leen yaram yu bari daw na ñu bari it sant nañu ndax nag bari na lu bari loo xam ne boo koy jëggaani boo kaamee du tee naam mën ngaa jëggaani waaye nag dootu tollooti noonu kon noo ngi leen di ñaanal ci barke Serigne Touba barke xasaayit yàlla na leen fay li am daal mooy jëwriñ ji ñu sant ni ko wooteel bég na sant na ma ni ma gërëm leen ñoom Papa Alsaan la ñoom mataar ñoom Abdoulaat xale yi dëkk bi la góor góorlu nañu kafewuñu seen bopp xam nañ ni lii rek moo fi nekk ñoo ngi ci sant nañ leen bég nañu ci kon sëriñ Abdoulaat mu ngi ci sa loxo nga war koo tasaare ci ñoom ñëpp noo ngi leen di ñaanal yàlla yàlla na leen yàlla def mag yàlla na leen xasaayit fay sëriñ gàkku nag léegi kon moom la jox xam ngeen ni sunu lépp nu bokkan fi daaw yàlla nañ fi bokkaat déwén Abdoulaye Diop Bichri Serigne Gana Messere nekkoon na fi léegi lan tàggalikook moom waaye loo xam ni ñëpp da ko bokk ñii itam lanu waxan Gana rek loolu lañ leen di wax sant leen gërëm leen ndax nit ki soxla nga teewal ko fa mënatu laa fay kon ñoom ñëpp Serigne Touba tax ñuy def wëllëree tax ñu di ko def Serigne Gana noo ngi koy dellu di ko gërëmaat ci turu Serigne Bassirou Mbacké mum Cheikh Sidil Mokhtar ndax Cheikh Sidil Mokhtar moom Serigne Cheikh Awa Balla mooy Serigne ñub Serigne Gana ku nekk xam ne tey occupation nu mu toll waaye doomi sëriñam bu dogoo ci mbir sama kër mbaam sama kër nijaay ñoo soxla looloo taxoon mu def sacrifice àndanteeg ñëw yal na ko yàlla fay kon dinaa dellu siwaat gërëmaat rek sama mbokk sama xarit Alioune Mbaye ñaanalaat sunu wëla réewa keroog ba mu jàppee sama loxo nuyoole ma ak Alioune Mbaye booba wuute na ak tey këram laa jëkk fanaan fii ci Touba Fall bu xeex avant première su ma saa maa ngi moo ma koy defandoo dañu daan ñëw ci Moodu mun préparé lépp papaam di nu àndante mu tàmbali di financé ba bis bi jeex ku war a sol mub jàngkat bu ne solal na la fii ku mu yaakaar ni da ko waxal ci Seydina Mohamed Serigne Touba solal na la fii góor ak jigéen mag ak ndaw ñii di jóge Gàmbi ñii di bàyyi ko Ndakaaru ñii di bàyyi ko Tiwaawoon fu nekk jàngkat di fa bàyyi ko mu di la teral ci wërsëgam yal na ko yàlla fay bis bii dong ak Touba la daan liggéeyal ñu baax xam la ne ni bi mu fi jógee ñu di seet gannaawam ba lépp wàcc ko compte ba fekk ñu fa lépp juróom benn junni poosam junneeg nangam kon moom lu mu am seddoon na ni bis bi dana ñëw seddoon na ni dina yàq jàkkaarloog yàlla boromam suñ gàkku kooku bëgguma ci di sori sax lii bokk na ci li ñu dénk sous bi bi mu fi ñëwee courant bi di dem ak ñëw yàlla mën na dogal bu soobee yàlla buñ ko fekkaatee mën naa am dootu amati ndax réunion CDD comité départemental de développement ba commité régional de développement bu dajee lu mel nii lay fàggu te ni ko sous-préfet waxee dëkk bi dafa màgg dëkk bi keroog ba laaji ndaa ma jëkkee natt muy 17 parcelles ñu naan dana du am bañ jóge ca def ko 150 parcelles mu jë muslimin أيها المشاهدون الكرام أصحاب الفضيلة والمعاني asxaab almajdati walsamaa xadratu suyuuqi walulama duyuufuna alkiram walasiina tarakuu xawaaijahum wa tarakuu diyaarahum wa tasaarakuuna fi haadihi almusaarakatu addiiniya uxayyikum bi taxiyatan min cindi illahi almubaarak wa as'aluhu tacaala an yajmaca quluubana cala mahabbatihi wa an yajhala majaalisuna haadihi majalis adduaai walibada wa dikr kama dakkalahu llahu fi lquran fa dakir fa inna dikra tanfau lmuminin wa qaala ahadun min assuhamai sénégaliya maam alhaji malik si radiallahu anhu malaikatullahi ma zalat kurama xaafat bi jamcihikum tuuba liman xadaru bokki julit yi bokki taalibe yi ginnaaw bu ñu santee sunu boroom mi nga xam ne laa xabla xablahu wala baada baadahu wala ilma lana illa ma allamtana ñu sant ko te sant gi ñu koy sant ñu yéene ci jaamuko ko julli ci sangub sang yi sayidil wujud wa alimu suhud sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye itam jaajëfal sayxinaa wa xabibinaa xawsul wara wa xutbu rabani maulana cheikh ahmad banba wa ala xadimihi maam cheikh ibrahima fall babul muridin gan ñi nuyu nañu leen siyaare leen tatagal leen ndokkeel leen ku fi yàlla joxub cër ku nekk jox nañu la cër ba na ko sunu borom joxe bu ñu ca mën a dolli sax ñu dolli ko ca ndax tatagal ak màggal sunu borom moo jëkk teral doomu aadama walla xadd karam naa bànnil aadama ñëw ci alquran seydina muhammad moo taxoon nun wal xalami ñëw ci alquran mu muhammad moo taxoon yàlla waxu ko jinne waxu ko malaayika aadama la ko wax te aadama bu ñu ko waxee nuuru muhammad moo taxoon muhammad moomu nag lañu tàntal fii tey tant bi lii sabab si dëgg-dëgg ndigal la lu jóge woon ci seex saalihu mbakke yal na yàlla doole leeram ñëw ci ku baax ku yaatu ku yaatal ku defal ñëpp lépp muy alxaaji Muudu Maamun yal na yàlla dolli ko leer mu waral tant bi tey mbooloo mi ñëw di taatansi ci guddi muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ni Serigne Touba nee na mbubbum rab mu ñu ko tàllal boo ko natteel yonent bi alayhi salatu mbubbum mooma dina ko rëcc loolu taxoon mu joxoñ ko ci xasidaam nga ni ko laka sabxun wa taqdirun yaa xayra saydin لدى وهد القهر رب الورى جلا لك العلم والأعمال والخير كله عليك صلاة الله يا من مع صلاة وي محمد لأنت إمام رسلي قد جاء أنهم تلاقوك في الإسراء وكل قد صلاة لبست ثياب المجد والفضل والهلا وفيك من الأخلاق ما أحجلت كلها كندو سيدنا محمد محمد مومو cent vingt quatre rusul yi yàlla yónni woon ci al yi nga xam ne sunu borom moo leen yónni tudd ñaar fukki ak juróom ci alxuraan génne wàtte juróom muy ulul asmi muy première première yi mu tànnaat ca benn muy Seydina Muhammad mu génnaat nekk première première yi moom la Serigne Touba jàkkaarool ni ko nabiyun asim nabiyun rasulun xayr abdin wa saydin xalilan habiban mislahu laysa yu'linu nubuwatahu xablal baraya xat in jalat lahu sabqu ina jada fitiini yoxjalibu kenn du seydina muhammad mbaaxam yaatoom yaram tegginam moo waraloon yan bi nga xam ni moom la ko sunu boroom yónni woon mu yóbbu ko fi ko boroomam tabaraka wa taala bëggoon mu yóbbu ko fa waaye mag ñooñu bi ñu taxawee de tagg muhammad sallallahu alayhi wa sallam muy ko mel ni Serigne Touba nekk ca Touba maam Alaaji Malik nekk ca Tiwaawan bu kii ne Muhammadun misaaluhu lam yaadi fii ma madaahu abadan laa yaadi jigéen ñi noppalu leen kenn dootul jur ku mel ni Muhammad maam Alaaji Malik nekk Tiwaawan ni ko Muhammadun asrafun alaami wal ajami Muhammadun xayru man yamsi ala alxadam sëriñ Tuubaa ni lam yabdu mislul Mustafa Muhammadi siran wa jëhran fil baraya samadi mam Alaaji Malik ko maa fil barriyati man lam taskuhu karaman min nuurihi rabbana yallaahu yallaahu waaye kan mooy Muhammad sallallahu alayhi wa kooku day alquran wàcc ci moom mu ñëw yan bi nga xam ne sunu boroom yónni na ko ko ci nit ak jinne mu yor ko